wa sifatuha meloom rakxataani ñaari rakk la fii kulli rakxatin nekk na ci bépp rakk rukkooxaani ñaari rukkoo bi xëyri adaanin ci ludul nodd wala bi iqaamatin du caa génn liqaam nee na moom nag ñaar rakk rek lay doon rakk bu ne nag day am ñaari taxawaay ak ñaari rukkoo waaye nag moom kenn du ko noddal kenn du ko liqaamal ndax noddal liqaam moom julli farata moo koy am ko yaqaraw dana jàng fil qiyaami ci taxawaay ba al awal bay aji jëkk min rakxati ci rakk ba al ula bay aji jëkk ba'dal fatiha ci gannaaw fatiha al baqarata saaru baqara wa fil qiyaami ci taxawaay ba al saani bay aji ñaareel min haa ca moom ba'dal fatiha ci gannaaw fatiha ba'dal fatihati al imraan suuratu al imraan xam nga rakk bu nekk day am ñaari taxawaay ak ñaari rukkoo soo kàbbaree da ngay jàng fatiha ñu sopp nga teg ci saaru baqara wu guddoo nga xam jege na juróom isib su saaru baqara jeexee nga daal di sëgg rukkoo te yàgg ci rukkoo ba loolu ba mel ni ba ngay jàng saaru baqara boo siggee nag ba wax samiha allahu liman hamida nga tàmbaliwaat njàng mu yees daal jàngaat fatiha boo noppee ci fatiha itam teg ci suuratu al imran bu al imran jeexee nag nga daal di rukkoo te rukkoo ba itam nga yàgg ca ba mel ne bi ngay jàng saaru al imran ci bi yàggaay boo siggee ci rukkoo ba nga daal di wax samihallahu liman hamida daal di jàll nag sujjóot te booy sujjóot nga yàggal sujjóot ya ni nga yàggale woon rukkoo ñaareel bee nga weesu woon boobaa nag am nga benn rakka wa fil xiyaami dana jàng ca taxawaay ba al awali bay aji jëkk min rakkaati ci rakka ba ak taaniyati bay aji ñaareel baadal fatihati ci gannaaw fatiha an nisa suratu nisa wa fil xiyaami ci taxawaay ba al saani bay aji ñaareel baadal fatihati ci gannaaw fatiha al maidatu saaru maida xam nga léegi boo amee benn rakka ba siggi ba taxaw da ngay daal jàng fatiha ñu sopp nga jàngati saar wu gudd say boo def ko sóoratu nisaa yi bu sóoratu nisaa yi jeexee nga jàpp ci say wóom te yàgg ca rukkoo ba mel ne bi ngay jàng sóoratu nisaa yi boo siggee ca rukkoo ba nag nga wax samihallahu liman hamida te tàmbaliwaat nag njàng mu yees ndax da ngay bëgg a def taxawaayu ñaareel bi ci rakkam ñaareel bi da ngay daal jàngaat fatiha jàngaat saaru gudd te say boo teg ci kon sóoratul maida ci misas ci nisaa nga xam ne bu fatiha ak sóoratul maida jeexee nag nga daal di sëgg rukkoo te yàgg ci rukkoo mel ne bi ngay def mel ne bi ngay jàng suuratul maayida soo siggee nag wax samiha allahu liman hamida door a jàll nag soo siggee nag ca rukkoo ba nga jàll sujjóot ñaari sujjóot ña te yàggal ñaari sujjóot ñi mel ne rukkoo ba nga mujjee woon ci yàggaay nii boo ko defee am nga ñaari ràkk nga taayu sëlmal nag loolu mooy jullik muuru jant gis nga ko ni muy yàggee ci boo ko defee ni ñu soppee ndax rakk bu ne am na ñaari taxawaay yu yàgg ak ñaari rukkoo yu yàgg ak ñaari sujjóot yu yàgg wala na kon faaw day yàgg wasalaatu xusuufil xamari jullit muuru weer sunnatu sunna la su weer yi muuroo dañ cee wuute ba xam julli gañ cee julli sunna la wala lu ñu sopp rek la moom nag da koo boole ci sunna yi waaye ñu ëpp ci borom xam-xam dañ koy jàppe ngëneel wa sifatuha meloom nag kasaa iri nawaafili mi ngi mel ne mboolem naafila yi rakk xataani ñaar rakk lay doon bi rukkoohin ci ab rukkoo waahid mbudi benn wa xiyaamin akub taxawaay waahid mbudi benn wal xiraatu jàng kayit fiihima ci ñoom ñaar jëxëra nekk na ci biral wala yu jimaxatu deful boole mbooloo laxaa ñeel ko dañoo bëgg rek su weer yi muuroo kenn ku nekk beru di julli sa bopp ñaar ñaar ñaar ñaar gannaaw faate saar wa ci teg rek mu baax na nga daan naafila rek amul yàggal rukkoo ak sujjóot yi lu may rek na nga ko daan yàggale ak na nga ko daan rukkoo ci julli kese rek julli aada rek di taqoo rek def ñaar ràkk def ñaar ràkk boo sëlmalee tàmbaliwaat ba kera weer weer yu muri ko wala nga sonn rek bàyyi dañoo bëgg na kenn ku ne beru defal ko bopp waaye tàmmuñ ñu def ko mbooloo ndegam julli guddile nag ndax weer yi guddile ñëw nag kon dañoo bëgg booy naafila naafile yooyu nga di ko biral arraabihatu ñeenteel bi salaatul istisqa yi mooy julli mbaaw wa takoonu dana nekk li ajli islaahi zarhi ngir yewinal mbay ma aw li shurbi xayawaanin wala ngir naanuk aw nu ndët aadamiyin muy doomi aadama aw xëyrihi mbaalu li moom julli mbaaw daal moom sàkku yàlla may leen ndox rek moo koy waral moo xam bëgg a defar mbay la moo xam bëgg a naan la saa yu ñitti woo ndox rek mën nañoo julli julli mbaaw gi sàkku ci yàlla may leen ndox wa sifatuha meloom nag ka saa irin nawaafili mi ngi mel ne mboolem naafile yi rakk xataani ñaari rakk la yecc xaruwaay day biral fii maaj ñoom ñaar bir xiraat ci njàng ma dafa gàttal ni mu ko waxee nag waaye jullik mbaaw daal moom moo jullik xiit ñoo bokk ci doon ñaari rakk te ñu leen di biral ak saar yi ci jàng itam ci sopp ñoo ko bokkle li ñu wutee nag mooy jullik xiit moom day am ay kàbbar yooyu wàññi juróom-ñaari kàbbar ci ràkk bu jëkk ak juróom-benn kàbbar ci ràkkam ñaareel kii nag amu ko kii moom kàbbar ya nga xamoon naka jëkk ci julli rek moom lay am buñ jullee ñaar ràkk ba noppi dañoo bëgg ilimaan ci xutba ñaari xutba te allahu akbar yam daa wax ci bu doon xiit mu di ko weccee ak jégglu ci bu dee julli mbaaw gi su jullee julli mbaaw gi ba noppi nag mu wëlbati ko jublu xibla wëlbati làmbaay ko nañ ko jàngoon ci risaala la nekkoon ci mbagum ndeyjoor dem ci mbagum càmmooñ la nekkoon mbagum càmmooñ ñëw ci mbagum ndeyjoor te du tee catu làmbaay ga moom cat la féeti woon suuf ba tey féeti suuf cat la féeti woon kaw ba tey féeti kaw su ko defee nag mu taxaw di ñaan moom ilimaan ji mbooloo mi nag ñoom itam wëlbati seen làmbaay tey toog ñoom di ñaan wala boog ñuy wax amin moom muy ñaan mu ilimaan ñoom ñuy wax amin nag bu ñaanee ba àggal rek daal dellu nag te yaakaar yàlla may leen taw bi doon sàkku faslun li ab dog la rakxataal fajri ñaar rakkay fajar raxibatun xemem teef la wala nga lu ñu xemem la taftaqilu loolu dana aajowoo illaa niyet njëm ci yéene taxu suhaa joj dana ko ràññeel nee na ñaar rakkay fajar yi raxibatu la raxibatu mooy loo xam ne boo weesoo julli sunna yi moo gën a màgg naafile yi kese yi rek moom kon ñaar rakkay fajar boo weesoo julli sunna yi nga wàññi woon ba wax leen benn benn ñaar rakkay fajar moo gën a màgg ci julli ci des waaye moom nag day aajowoo nga yéene ko yéene ju ràññiku mooy da ngay bàyyi ba fajar fenk nga yéenee def ñaar rakkay fajar yooyu de waaye boo jekkee jekki julli ñaar rakk te jubluwoo ci mu doon ko it du tax mu doon ko day aajowoo nga yéene ko yéene ju ràññiku muy yéene muy sa ñaar rakkay fajar muy yéene muy raxibatu daal waxtutaa waxtoom nag ba'da tuluuxil fajri nekk na ci gannaaw fenkuk fajar dañuy bàyyi nag ba fajar fenk nga door koo def koy nattable fajar fenk naam fenkut boo ko defee itam du doy faaw nga bàyyi rek ba fajar fenk wa man daxala ku dugg almasjida jàkk ja fa wajadate mu fekk al imaama ilimaan ba yusalli muy julli asubha suba tarakahuma mu bàyyi leen ñoom ñaar wa daxalate mu tàbbi maaxoo ànd ak moom nee na boo ñëwee jàkk ji fekk julli goo woon ñaar rakkay fajar waaye fekk nga ilimaan mu tàmbalee julli kon ngay daal di ànd ak moom ci julli farata ga te bàyyi ñaar raakay fajar ñi bu jant bi fenkee ba yëkkati ko ñetti meetar la fa dalee mën nga koo fay ba kera ci baari jot waaye bu ñu xasee taxawal julli farata gi ci jàkka ji kenn suñu faa julli keneen julli loolu moo tax kon boo dikkee doonte ilimaan ji yéex na ba nga mën faa julli ñaar raakay itam du tax nga julli fa ñaar raakay fajar ngay ànd ci julli mbooloo ga rek wa in uqimat ndéem taxawaleef na xale yi ci moom asalaatu julli ga waxoo te fekk na moom xaarijal masjid yi nekk na ci bitti jàkka ja fa innahu naka moom yarkaahuma dana leen julli ñoom ñaar maalam yaxaf li fekk ragalut fa waata rakkatin faatug rakka nee na bu fekkee da ngaa dégg ñu li xaamal ilimaan julli suba fekk yow nag duggagoo ci jàkka ji kon bu la wóoree ne ilimaan ji ilimaan ci yeex la ba mën ngaa gaaw julli fi ñaar rakka yi fajar te rakkaam bu njëkk sax du la raw boo demee fekk ko ñu rakk bu njëkk bu du la raw da nga fekk rakkaam bu njëkk kon noonu ngay def kon fa nga nekk ci bitti jàkka ji fa ngay gaaw jullee fa ñaar rakk yi fajar door a dem nag ànd ak ilimaan ba fa in xaafa ndem ragal na zalika loolee daxal mu tàbbi maxal imaam yi ànd ak ilimaan ba su fekkee da ngaa ragal ne boo fi dee julli ñaar rakk yi fajar da nga fekk ilimaan noppi ci rakkaam bu njëkk ba jàll ci boobu ñaareel maanaam da nga fekk daal rakk bu njëkk bu raw la kon la gën mooy nga bañ a julli fajar te dem fekk lépp julli ilimaan ga mooy fekkee ràkk bu jëkk ba fekkee boobu ñaareel ba ndax fekk ñaar ràkk yépp moo ëpp tuyaa ba nga dem fekk ñaar ràkk yépp moo gën nga ne naa gaaw rek julli fii fajar su ma demee fekkee ràkkab ñaareel ba ndax su ma fekkee ràkkab ñaareel bi am naa julli mbooloo wax nga dëgg de am nga julli mbooloo waaye nga fekke woon ñaar ràkk yépp moo gën te bàyyi fajar gi nag bu jant bi fenkee ba yëkkati ñetti meetar da nga ko mën a fay la fa dalee ba tisbaar jot wa yustahabu def na sopp an yaqara amu jàng fii ci maaj ñoom ñaar bi umil quraan ci fatiha faqat dong dañoo sopp nag ñaar rakkay fajar rakk bu ci ne nga jàng ci fatiha kese bañ caa boolew saar teewul nag am nañu ca tudd gannaaw fatiha ci rakk bu jëkk qul yaa ayyuhal kaafiroon gannaaw fatiha ci rakk bu ñaareel qul huwallahu ahad loolu ñu nettalee ci al imaamul xasaali nag moom siiw na ñaar rakkay fajar yi nga jàng ci jaari alam yi rakk bu jëkk gannaaw fatiha alam nasra rakk bu ñaareel gannaaw fatiha alam tara moom lay wax ci salaabi naa wayu taru xanil xasaali anna man qaraa fii rakxatayil fajri bi alam nasra wa alam tara bi alam nasra wa alam tara kayfa qasurat anhu yadu kulli xaduwin walam yujhal lahum ilayhi sabilun ñaaraa kay fajar boo jàngi alam nasra alam tara sa noonu yépp dañu tëlee ci fexeel la duñ la mënal dara dara te yàlla lu leen may aw yoon wuñ agsi wuñ agsee ci yow wuñ jaar ba agsi ci yow faslun li ab dog la salaatu duha julli yoor yoor mustahabatu lu ñu sopp la wa aksaruha gën jaabareem samaanu rakxaat juróom-ñetti rakk la nee na julli yoor yoor bokk na ci naafile yu ñu sopp lool lool waxtoom mi ngi tàmbalee ci bu jant bi fenkee ba yëkkatikul mën ñetti meetar dafa dale ba tisbaar mooy waxtoom gën jaa néewam mooy ñaari rakk gën jaa bareem nag mooy juróom-ñett juróom-ñett moom bëgguñu loo sawar sawar bu la ko ko weesale la ci gën a digg doomu nag mooy juróom-benn wa tahiyatul masjid ak nuyoob jàkk nuyoob jàkk bokk na ci naafile ñu sopp lool wax yow moom rakk xataan ñaari rakk la xabla ay xabla an yajlisa ci njëkk muy toog wala tafoot waaye nag du raw bi julloo si ci jataay ba nuyoob jàkk moom nee na mooy boo ñëwee ci jàkk te fekkoon ñu taxawal farata waxtu woowu itam si buñu ca naafila araamaluñ ko ca kon sopp nañ nga julli ñaari raaka bala ngaa toog nuyoo ko jàkk ja teewul nag boo xasee toogit toogaay bu taxu ko raw mooy bëgg nañ nga jóg rek def ko boon romb rek jàll moom jaru ko waaye ndegam nar ngaa toog nag moom dañoo bëgg bala ngaa toog julli ñaar raaka boo xasee toogit du tee rek ñu bëgg nga jóg def ko wa qiyaamu ramadaana ak taxaw ramadaan te mooy naafile yi ñuy def ci weeru koor waxu moom salaasu ñett la waxi su naan ñaar fukk rakk xatan ci rakk bi chaf yi ànd ak safa wal witri ak wetar nee na naafile yi ñu def ci weeru koor bokk na ci naafile yi ñu sopp lool lool dañoo wuute ci lim ba lim bi mu wax am na ñu ko wax mooy ñaar fukk ak ñett yoo xam ne safa ak wetar ca la liñ leen fii nag moom mooy la addis ba waxam ne yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mësta weesu ci genn guddi fukki rakk ak ñaar ak wetar wala daal moom la fii moom di def wasalaatu sopp nañu julli xabla zuhri ci njëkk tisbaar wa baadahu ak ci gannaawam wa xabla alxasri ak njëkk takkusaan wa baada almaxribi ak ci gannaaw timis wal hichaay ak gee walaysa fi zalika déet mu nekk ci loolee taxdiidun ak limité balli fi nekk yu sal yi dana julli maa la nga xam ne tayassara jàppandi na la xooñeel ko sopp nañ bala ngaa julli tisbaar nga naafi ne lum néew néew ñaari rakka soo ko may def ñeent nag ñaar sëlmal ñaar sëlmal bala ngaa julli tisbaar moo gën gannaaw boo jullee tisbaar ba tey sopp nañ naafi ne boo sawaree moom it gën ngaa néew ñaar waaye boo ko may def ñeent moo gën ñaar sëlmal ñaar sëlmal bala ngaa julli takkusaan ba tey sopp nañ naafi la loo man la ci gën a néew nag mooy ñaari rakka la ci gën nag mooy nga def ko ñeent ñaar sëlmal ñaar sëlmal gannaaw takkusaan dañoo sib naa fi la moo tax tudd ko gannaaw timis itam digganteem ak gee sopp nañ fa naafi la moom itam gën gaa néew ñaari rakka sëñ mag bi nañ daana santaane gannaaw timis nga julli ñaari rakka te rakk bu njëkk bi nga jàng ci xul yaa ayyuhal kaafiroon rakk bu ñaareel xul huwallaahu ahad gannaaw timis ne boo ko mën def juróom benn rakka moo gën wax nañ ca gëneel yu bare bare gannaaw gee itam sopp nañ ca naafila lu mu néew néew nga def safa wetar muy ñett rakka yooyu soo may def ni ngay def ni weeru koor nag def fukki rakka ak ñaar teg ca wetar moo gën ci guddi gu ne wa sajda tut tilaawati ak sujjóotub jàng alquran lil xaari yi ñeel aj jàng alquran bokk na ci ñu sopp mooy booy jàng alquran ba àgg ci bérébu sujjóot te fekk nga matale sart ya nga bañ koo weesu sujjóotal ko daa am ñu wax ni sunna la am ñu wax ni ngëneel la waaye nag ñu gën a bari daal dañuy wax ne ngëneel la waxaasidil istimaahi ak aj jublu ak déglu ci sartu inkaana dem nekk na alxaari yu aji jàng ja saalihan di aji yiw lil imaamati ñeel jiite bi ankaana ci mu nekk dakkaran di góor baalixante aji kàllafe mu tawab di ante aji jàpp xayra qaasidin te du aji jublu ismaahan naasi déggal nit ñi xusna qiraatihi neexuk jàngam nee na bu fekkee ne yow jàngoo waaye dangaa toog di déglu ka nga xam ne mooy jàng kon am na sàrt yoo xam ne bu dajee ci ka ngay déglu muy jàng yow ñu koy déglu daañu sàkku ci yow bu kooko tolloo ci béréb bu sujjóot moom may jàng yow na nga sujjóot doon ci sax moom sujjóotut loolu nag mooy kookee di jàng te nga toog di ko déglu góor la te mu kàllaf la te amee nag laab te jublu na xibla te day jàng rek ngir yàlla waaye bëgg a wan nit ñi ak mokkalam baa neexub baatam taxu koo toog di jàng ku mel ne kooku daal boo toogee di ko déglu su jàngee ba àgg ci béréb bu sujjóot yow ñu koy déglu yow na nga sujjóot doon te moom sujjóotut ci sartum ne yow itam nga amee sarte ñu waxoon mooy amee nga laabu xadas amee laabu xabas sàng sa awra jublu xibla waaye tax yow itam nag nga sañ a sujjóot waaye bu sujjóot nag te amoo sart yooyu waxiddatu sajadaati li mub sujjóot ya allati ya nga xam ne yus jëru def na sujjóot laxaa ñeel leen ihda xasharati fukk laak benn sajadatan ci ay sujjóot waxee ñoom maaxadal lët yi mooy yu bokkutal ya nga xam ne fi naj mi nekk nañ saaro naj mi wal inchixaaq ak inchixaaq wal qalami ak qalam wa taaniyatil xaj yi ak ñaareelu xaj yi bu dee ci yoonu al imaamu malik nee na fukki béréb ak benn rek ci alquran la ñuy sujjóot béréb yooyu nag dafa siiw bu baax a baax moo tax mu tàyyi leen a tudd waaye ci gàttal mën nga ne ba ci njëkk mooy mujjub laxaraaf fa laxaraaf yam benn la soo agsee ci wal asaal ci rax di ak yu maroona ci nax li ak xushooxan ci wisra yi ak bukkiyan ci mariam ak mayeshaaw ci xajji xajji daa am ñaar mayeshaaw jooju mooy bu njëkk bi moom lañ ñuy sujjoot ba ci mujj nag moom la junñi ci yax ba naa la ak ñaareelub xaj ji muy wasaaniyatul xaj ji mu yaa ayyuhal lazina amanu rukkahu wasjudu wax ji gën a wóor mooy duñ ko sujjoot ci yoonu Malik soo demee ca furxaan ci baatug nu fooran ba fa la ñuy sujjootee boo demee ca namli rabbul arshil azim foofu la ñuy sujjootee boo demee ca suuratu sajda laa yastakbiruuna ci la ñuy sujjootee boo demee ca suuratu sadd daañ ko wax suuratu daawuda wa anaaba ja ci la ñu sujoote am na ñuy wax sax waxos waxos na ma aabin ji waaye wa anaaba ja moo gën a wóor ba agsee ci suuratu fussilat ki wax suuratu tafsil moom baatu temps bu doona ci la ñuy sujoote moom nag moo mujj ci sujoot yi boo tàmbalee ca téeréb kaw ba ca baqara jëm si suuf foofoo ci mujj la tàmbalee suuratu tafsil ba kaamil bi jeex bu dee ci yoonu Malik amul bérébu sujjóot moo tax mu naa la yu bokkut ak ya nekk ca naj meeg lin chiqaaqeeg xalameeg ñaareelub xaj yi da ci junj yi nga xam ne yoonu Malik duñu ko sujjóot boo dee xool téere penku yi nga xam daañu ko sujjóot nag daañu bindaale foofu sax bérébu sujjóot ca boo demee ca naj meeg lin chiqaaqeeg xalameeg ñaareelub xaj yeeg yu demee noonu faslun salaatul janaasat julli tàdd fardu kifaayatin fardu kifaaya la waxee la waxees na ne sunnatun sunna la maanaam julleeg néew lay wax naa am na ñu wax ne fardu kifaaya la am na ñu wax ne sunna la waaye nag fardu kifaaya gi mooy li gën a wóor wa arkaanuha ay ponkam xamsatun juróom la ay farataam juróom la al awal bu njëkk ba an niyatu mooy yéene ja yéene jullee kookee faatu mooy benn farata ba ataani ñaareel ba alxiyaabu mooy taxawaay ba taxawaay ba ngay taxaw boo ko dee jullee bañ a war bañ a toog ndegam mën ngaa taxaw farata la ataani su ñetteel ba ak takbiru mooy kàbbar ga waxoo moom arbaxu takbiraatin ñeenti kàbbar la nee na kàbbar ga ci juleeg néew farata la deesu kàbbar benn yoon nag ñeenti kàbbar la ñuy kàbbar wa isa saada ndem yokk na alimaamu ilimaan ba xaamisatan ab juróomeel lam tabatul du yàqu salaatu wa juleem nga wala yet baam xoote du ko topp man ka nga xam ne xalfahu nekk na ci gannaawam wa yusallimuuna danañu salmal wala yantadiroonahoo te duñu ko néggandiko nee na bu ilimaan defee ñeenti kàbbar yokk ca kàbbar juróomeel na maamu ñu wax asalaamaaleykum te bàyyi ko waaye buñ ko topp ca kàbbar ba déedéet duñ ko xaar itam dañuy daal sëlmal ñoom rek doonte sax dooli gam dooli njuumtee tax it du tax ñu topp ko ca loola du tax ñu xaar ko ñoom dañuy sëlmal rek bàyyi ko wa yustahabu def na sopp raful yaday ni yëkkati yaari loxo ya fi takbirati ci kàbbar ba al ula ba jëkk faqat doom allahu akbar ba ngay jëkk wax rek kat la ñuy sopp nga yëkkati say loxo waaye kaabay ci des moom dañoo bëgg rek nga tudd kaabar ba ci sa làmmiñ te bañ yëkkati say loxo wal ibtidaaw sopp nañ tàmbalee bilhamdulillahi ci alhamdulillah mooy sant yàlla maanaam taamu nañ boo kàbbaree bala ngaa ñaanal néew bi nga sant yàlla julli ci yonante bi doora ñaanal néew ba nag arraabi xu ñeenteel bi adduhaaw moo di ñaan nga lil mayiti ñeel néew ba bi itali kulli takbiratin ci gannaaw bépp kàbbar bi ay duhaayin ci góoba ci ñaan tayassara moo jàppande wala yustahabu defu sopp nag duhaawun ñaan maxsoos ñu guddi guñu ràññeel nee na ñaan gi nga ñaanal néew ba ci gannaaw kàbbar bu ne farata la ci faratay julleeg néew te moom nag wóote naag julli farata yi xam nga julli farata yi moom bu ilimaan jàngee rek jàngaale na maa moom waaye julleeg néew dañoo bëgg moom na ilimaan di ñaane na maamu itam ñaane noona faaw da ngay ñaan na nga xam ne moom la ilimaan di ñaane waaye nag bul ne rek bu ilimaan ñaane ñaanal na ma déedéet ah li mu wax léegi nag ne amul genn ñaan ku ñu dogg ne moom rek ngay ñaan waaw noonu la demee ñaan gu ñaan gooy ñaan rek baax na teew na am na ñaan goo xam ne moom la Malik gën a taamu ñu koy tuddee du xaaw abi xurayrata ñu andi ko ci téere yu bare bari mu tàmbalee allahumma innahu xabduka wa bun xabdika wa bun amatika ba nam daanoo waaye doo jekki-jekki jàng ko da ngay jiital sant yàlla julli ci yonante bi door koo wax loolu laa ci gën alxaamis juróomeel bi asalaamu mooy sëlmal ba wax nga asalaamaaleykum faratala ci juleeg néew wa yusallimu dana sëlmal al imaamu ilimaan ba waahidatan benn xan yaminihi walis am ndey jooram yusmiu dana déggal nafsahu boppam oman ak nga xam ne yeli dana sës ci moom wa yusallimu dana sëlmal al maamoom maamoom ma waahidatan benn sëlmal yusmiu dana déggal nafsahu boppam faqat dong wala yaruddu te du delloo sëlmal xalal imaam yi ci ilimaan ba nee na sëlmal bi farata la bu fekkee yaay ilimaan bi da ngay sëlmal benn sëlmal xaw a dumooy si wetu ndeyjoor te yëkkati ko tuuti ba nga xam ne ki sës ci yow dana ko dégg su ko defee maamu yi nag kenn ku nekk daal di wax ab sëlmal wax ko benn yoon rek te wax ko ndànk du aajo wa yëkkati mooy maamoom du aajo mu yëkkati ab sëlmalam bu dee ci léegi néew tey du delloo sëlmal ilimaanam déedéet day wax rek asalaamaaleykum ndànk muy benn mu daal di bàyyi. albaabu lii mooy bunt bi ak saalis bi ak ñetteel fi zakaati ci asaka kon bunt ñetteel baa ngoog aju ci wàllu asaka waxiya moom nag xibaaratun aw waxin la wala aw firiwin la xan maalin walis alal maxsuus ñu di juñ ràññeel yu xasu def na ko jàpp itam min maalin ci alal maxsuus ñu di juñ ràññeel ida balaxa ndem jot na xadaran ab kem maxsuusan bu di buñ ràññeel fii samanin ci jamono maxsuusin jur ñu ràññeel te yusrafu def na ko joxe itam fii jihaatin ci ay wàll maxsuusit ñu duñu ràññeel asaka da ngay wax ne alal ju ràññiku la mel ne bu dee ci wuru sa xaalis nga ne kaaru fukkeel lay doon xam nga kaaru fukkeel nag alal ju ràññiku la ñu koy génnee ci alal ju ràññiku alal ñu koy génnee tamul ju ràññiku nag yow mën naa takk mooy kee wurus a xaalis ak mbay muy ñaar ak juru kër juru kër na boo ko waxee mu yóbbaale gàtt xar ak béy ak nag ak gëléem yooyu mooy alal juraañu ko ja nga xam ne ci lañu war a génne asaka su tolloo tolluwaay sàngam ngay wax loolu mooy nisaab ndax xam nga ne buñ nee nàngam asaka war na ca li fekk agul ci tolluwaayu nisaab ba rek asaka du ca war daañu ràññeel nag nisaab ci kenn ku ne te it day am jamono sàngam juñ ko war a génne dane bu dee wur sa xaalis ak jurub kër moom saa yu at ma matee ca la ñu koy war a génne su dee mbay nag moom saa yu ñoree rek ca la war a génne asaka ja suñ ko génnee itam dañ koy joxe ci ay joxewukaay yoo xam ne alxuraan ci boppam moo ko ràññeel ba mu juróom-ñett ne fii fi ñu war a def asaka danañ ko leeral ci kanam na ko laaye bu indee te ji bu dana war xalal xurri ci asgoor al muslimi ku di ab julit kaana moo xam nekk na zakaran di góor aw unsa wala muy jigéen sahiran muy gone aw kabiran wala muy màgg aaqilan muy aji xellu aw xayruhu wala kudul moom asaka nag moom nee na képp koo xam ne rek sartee daje na ca te ñu sàkku ci yow nga génne ko doo ko sañ a bañ moo xam góor nga moo xam jigéen nga moo xam mag nga moo xam gone nga moo xam am nga xel moo xam da ngaa dofe lu mu ci mën doon rek du tey alal dof sax asaka war ca kilifaam moo ko koy génneel fa fa nisaabu zahabi nisaabi wurus xisroona ñaar fukk la dinaaran ci ay dinaar day tàmbali wax nisaab nee na bu dee ci wurus moom ñaar fukki dinaar mooy ci nisaab ñaar fukki dinaar na mën nga koo xam léegi ci ay ngaraam mooy quatre-vingt-cinq grammes quatre-vingt-cinq grammes mooy nisaabi wurus wa nisaabul warixi nisaabi xaalis mi ataa dirhamin ñaari téeméeri dërëm la ñaari téeméeri dërëm yi muy wax nag yooyu yoon la ci jublu jublu ci ñaar téeméer yi nga xam mu yooyu CFA am ñu koy génne ci yooyu CFA yi nag ndax xam ne juróomi dërëm moom yow mën a génn ci ñaar téeméer yu ne waaye jàppal ne soo bëggee xam nisaabi xaalis na ngay xam na ngaraam ya toll ci boo ko dee seet ci yoon jàppal ne benn dërëm yoon daal war naa tolloog deux virgule neuf cent soixante quinze grammes boo ko defee ba muy ñaar téeméer nag boo ne loolu mooy benn dërëm nga def ko ba muy ñaar té ba muy ñaar téeméer yoon kon jàppal ne ñaari téeméer dërëm yoon daal war naa toll ci cinq cent quatre vingt quinze grammes cinq cent quatre vingt quinze grammes nag ci xaalis bu sell bi nga xam ne moom nga seen tëgg yi di ko xel yi di ci def ay takkaay soo laajee ci boutique yi saa yu nekk rek lu benn garaam toll nga seet ko nag ba mat loolu rek moo lay jox nisaa bi xaalisu CFA biñ ko mujjee laaj tam doonoon benn garaam deux cent quatre-vingt loolu boo ko defee multiplier ko cinq cent quatre-vingt-quinze da lay jox cent soixante-six mille six cent loolu la lay jox nga xam loolu moo tolloo kon nisaa ju xaalis ci yooyu jamono wal waajibu aji warja fii daalika ci loolee rubxul fushri mooy kaaru fukkeel ba isa balax ndem jot na xawlan at kaamilan mu di aji mat wa kaanate mu nekk milkan di ak moomeel kaamilan gu di aji mat nee na nag boo amee nisaa bi xaalis mbaa wurus te yore ko lu mat at mat sëkk te moom ko moom gu wér war nga caa génne asaka tolluwaay ba nag mooy nga génne kaaru fukkeel kaaru fukkeel nag mooy la nga yor lu mu bari bari soo ko defee fukki xaaj benn xaaj bi nga defaat ko ñeenti xaaj ñeenti xaaj yooyu rek boo ci joxe mooy sa asaka ni ki boo seetloo ñu naa ñaari téeméeri dërëm ñu naa juróomi dërëm mooy asakaam dañuy jàpp ne ñaar téeméer boo ko doon seet li fukki nit kenn ku ne ñaar fukk lay téye te ñaar fukk nag boo ko defee ñeenti yoon maanaam boo ko xaajee ñeenti xaaj xaaj bi ne juróom lay doon kon nag kaaru fukkil ba juróomi dërëm la lu ma tax ñu naa xaaju CFA bi ñaari téeméer yu ne nga génn ci juróomi dërëm taxul mu jafe moo tax am na ñu koy def waaye jàppal ne daal moom saa yoo bëggee génne asakay xaalis ba wurus daal da ngay diviser par dix la génn nga diviser waat ko par quatre par quatre yooyu nag boo ci joxe rek mooy doon sa asaka nga seet lee mu wax ne bala koo asaka war da ko moom moom gu mat sëkk daa bëgg nga génn ci bu ñu la dénkee rek mbaa nga siif rek yëfi jàmbur mbaa nga for rek alali jàmbur yooyu yëpp asaka waru ca ndax moomoo ko dëgg-dëgg bu dee ku bari ay bor ba nga xam ne wur sa xaalis bu mu yor bu ca fayee rek jeexal mbaa bu fayee sax bor ya du matal te amul leneen lu mu def ca bor ya ba tey kon asaka du ko war waaye nag bu amee leneen lu mu def ca bor ya moom te asaka waru ca ci xeeti matériel yi kon daa war a jël loolu def ca bor ya te asaka war ko nag ci la mu war ci wuru sa xaalis faslun li ab dog la fi zakati naami ci asaka yi juri kër bu ñee juru kër dana ko wax léegi wax yee ñoom al iblu moo di gëleem ya wal baqaru ak naya wal xanamu ak gàtt ya maaloo fatan mbir mu ñuy luñ yafal aw saa imatan wala ñu aji wëtt yafal mooy nga yeew leen di leen yafal wëtt nag mooy nga bàyyi leen ñuy far ci àll ba aamilatan mbir mu ñuy aji liggéey aw muhmalatan mbaa ñuy lu ñu neenal bi ngeen liggéey mooy lu mel ne nag wala gëléem guy bàyyi ko def lu mel noonu neenal gi nag mooy nawoo xam ne doo ko liggéeyloo mbaa gëléem goo xam doo ko liggéeyloo lu mu ci mën doon rek gëléem daal ku ko am ak nag mbaa xar ak bay bu fekkee mat na nisaab nga war caa génne asaka wala tajibu du war fii xëy di xaa ci irul ñoom nan xëy di ca fas ya wala bi xaali ak baxla ya wala xamiri ak mbaam ya wala raqix ak ay jaam nee na nag boo weesoo yee rek jeex na asaka du ca war mel ne fas asaka waru ci baxla ñu di wax berkelle asaka waru ci mbaam